ñenn ñoo xam ni dañoo jël fichier bi amoon nañ ko am seen i technique am lenn luñ def am na ñoo xam ni dañoo décidé woon def animation politique dem ci sénégalais ndax léegi loolu yamale na ñëpp dañuy nangu ni yamalewul ñëpp donc li ñu wax ci problème bi parenage bi man am na ci pàcc yoo xam ni nangu naa ko. donc da euh, mhm. du question ni li ma jàpp man li ma jàpp amul solo li am solo mooy ndax li am méngoo ak dëgg ndax li am méngoo na ak njëriñu réew mi ci tànn njiitu réew mi lañ jëm c'est que fi mu nekk wax ji egg na fenn foo xam ni commencé nañ di soofantal poste boobu ba ku nekk sax jafe ni war nga koo mën a doon ku nekk nag am nga sañ-sañ waaye ñu ngi ciy xaar ku am dayo ku am xam-xam ku am dal ak ku mën a jëme réew mi ci lu baax. jafe xam nga bu fekkoon waa nguur gi ñoo bëgg ñu reporter bu boobaa ñu ni ñii dañ fay bëgg toog mais ku gi ñoom ñoo ni yoonu tànneef bi première barrière bi am jaarul yoon ca am na lu ciy dëgg bu fekkee nii ñuy tànnee am na leen lu ci jaarul yoon rek. mujjantal la tànn ga du du jukki li gën ci réew mi. mais mooy li ma la wax c'est suñu processus électoral man jàpp naa ni bokkoon na ci li tax ma doon wax nañu woowaat dialogue bi ñu xool nañu wootewaat dialogue bi ñu xool balaa ñuy dem ci élection yi parce que am na ay manquement mais boo ko waxee dañuy def ni da ngay xeex ma Samba wala da ngay xeex ma Demba. njariñu réew mi rek moo taxoon ñuy wax te njariñu réew mi rek moo tax ñuy wax ba léegi mais ñu jàpp ni que lu ëpp ci opposition bi mënuñu wax poser problème bu sérieux noonu nga xam ni day day day refléter euh, day répercuter wu ci sincérité processus électoral bi ba pare kenn du leen déglu dañ leen war a déglu loolu mooy dëgg loolu mooy yoon li tax ñu war leen déglu mooy est que bu ñu bu ñu leen dégluwul mën na jur leneen et li tax ma jàpp ni que njiitu réew mi daf leen a war a déglu moom pare na def na fi fukki at ak ñaar lim mën def na ko li mu deseel waa réew mi mooy organiser élection yu mucc ayib yoo xam ni contestation du ci am sénégalais yi ñooy tànn kiñ yaakaar ni moo gën ci moom tànneef boobu dafa war a jaar yoon bon euh, ça dépend ci lan nga dégg mooy trop tard. à quelques jours. des élections am jàmm. Mhm. moo gën fuuf def élection nekk ci fitna am jàmm moo gën fuuf yóbbu ci réew mi ci loo xam ni parce que il faut reconnaître pour une fois opposition bi man. ànduma ak ñoom et eh, mais tamit dinaa wax sama xalaat ak sama ngëm-ngëm ñooñu bind liste bi ca ñeneen yokku ci xam nga nax bi fi mu njëkk a commencé ñiy wax ni que woy ay est-ce que weesuwul ay est-ce que weesu na ñoom ba ñu tollee ci ñu régler seen problème dañoo créer conditions yi ñu régler seen problème mais munoo jël ñooñu signé kayit yooyu am na ci ñoo xam ne jàll nañ parrainage wala am na ci ñoo xam ni amuñu problème mu parrainage mais problème mu euh, légitimité élection yi mooy seen problème am na ci ñoo xam ni jàll nañ parrainage teg nañ sax seen directoire de campagne mais signe nañ kayit bi ni nañu waxtaanee mbir mi ñooñu xëy na bëgg jàmm ci réew mi ak bëgg tànneef bi mucc ayib parce que euh, gis nga bu bu jant bi sowee lépp njariñ ci réew mi mooy ñu ne ci jàmm ki gën ci ñun ak wala ki sénégalais yi gën a wóolu jiite réew mi. waaw ni que bon wax dëgg yàlla am na ci coup yoo xam ni am na ci jàpp naa ni xëccoo warul egg ba ci noonoo ak a bañante suñu ñëpp nag ci réew mi lañ to dëkk ku jàngee ci mi yaroo ci réew mi di ut teraanga ci réew mi am na foo xam ni waroo fa egg mooy comme li opposition bi def opposition bi mais woowuñu nit ñi ci mbedd mi xam nga ñooñu signé kayit yooyu am nañ mbooloo de parce que ay élection jàll nañ fi ñu xam lan lañ am mais woowuñu ñu ñi ci mbedd mi woowuñu nit ñi ci ñu taal réew mi woowuñu nit ñi ci ay manifestation woowuñu nit ñi ci ñu déstabiliser réew mi dañu woo réew mi njiitu réew mi ni ko nañu waxtaane lii parce que xel nangu na ni ko yow boo defee li nga mën sa aqulaay tàlla ndax président Macky am na bilan wala amul bilan personnel kooku mën nañ ci discuter ba suba waaye même ñi ko bañ sax dañuy nangu ni que am na fu mu fekk réew mi am na fu mu ko yóbbu lim ñu deseel mooy organiser élection yu transparent par rapport juste ak li nga xam ne moom mooy légitimité euh, ak euh, si ay élection yoo xamante ne transparente jaar mm. yoo xamante ne ñëpp nangu na mm. mais est ce que loolu tey boo ko boo ko boo ko waxee du créer ay conditions mm. d'un éventuel report d'élection non mais du question éventuel ou report du man ma wax ko du li Mame Mbaye Niang xalaat du li Daouda xalaat du li Mohamed xalaat du li ñu jiital njariñu réew mi opposition bi ñu fa nekk foofu ñu ci ëpp jàppante nañ yow xam ngeen ci seen rajo yi la ñuy waxee man ak ci seen seen yi la ñuy waxee man ci seen télé yi laay waxee ci seen site la ñuy waxee. mais waxtaan boobu ak gis nga ak lum mën a coûter même bu fekkee dañuy dàq ñetti weer pour que ñëpp dé d'accord ñu dem sénégalais yi àtte loolu moo gën ci réew mi parce que leneen fitna la. ñiy wax ni que non jaru ko wéy dafa am luñ foog rek te lañ foog amul. liñ foog mooy mais mais loolu ku ko xalaat yaa ngi nax sa bopp. loolu ku ko xalaat yaa ngi nax sa bopp. fii ku yaakaar ni que mën nañ la xàllal yoon ba nga ñëw toog bu xàllin wa bu jaarulee yoon doo fa toog ñaari fan du la jariñ donc lépp nañ ko teg ci dëgg man xooluma fu ma far man sama position personnelle mooy nit laa àndaloon moom laa àndal ba léegi def na lim war a def lim ñu deseel réew mi mooy organiser processus bu transparent bu ñëpp d'accord ki sénégalais yi wóolu ñi nekk ci camp ngemb mais nañ dem jël bilaam ñu xeexe loolu jël ay nitam ñu xeexe loolu ay mat yi de même am Cheikh Moussa xam naa di ngeen mhm. ànd ak man ci loolu mhm. euh, Mame Mbaye Niang moom xam naa ne comme toogee ko la toogee mhm. mën naa ko interpellé directement ma ne Mame am une dent parce que dafa mel ni rébellion bi nga euh, rébellé wu nii en quelque sorte face à ce ce ce wala ce choix de Benno mm-hmm. Benno qui est votre coalition APR qui est votre parti nga xamante ni tey topp nga ci Macky Sall ànd nga ak moom ci loolu xeex ngeen façon xeex bu ne mm-hmm. ngeen dem tey bu mu choisir benn candidat boo xamante ni tey moom moo moom la wóolu moom la teg ci bopp réew mi yow nga démarqué wu carrément loolu aussi ça nous étonne quand même que amul loo jàppal premier ministre yow xanaa moom yow da ngaa bokk ci ñi mu yónni non dama lay laaj. c'est juste tooñi eh, loolu ma ne la parce que. ay ay nitam ñooy wax loolu mais yow journaliste nga élection locale yi fan la la fekk ah parti bi coalition bi tànnul woon candidat tànn candidat ci dix-neuf communes wala man tànn ma woon yeneen candidat ci dix-neuf communes yooyu yëpp tànn sama bopp pour mairie Dakar te pourtant maa nekkoon chef de cabinet président lu tax boobu waxu leen ko man ñi ëpp ci ñi a jàppanteel bu dul at bii nii mais ci suñu parti la ñuy jàppante. léegi esprit de rébellion du esprit de rébellion ngëm-ngëm la xam nga ñoom dem nañ li ci ëpp ci li ñuy jëw ooy ah, dañ ko yónni eh, magum jëm mu toll ni man. Ah, am na ñu naan sax am na ñu naan sax. waaw dafay waxtaan ak Sall wala président. non daf ko kii xam ci suuf. waaw mais mais loolu ñi mais loolu ñi nekkul ci dëgg. ñooy wax loolu. candidat dakaar fii tànn nañ ko. ñu dem jongante parce que ànduma ci woon. lu tax fàttaliku woo loolu. et boobu maa nekkoon chef de cabinet président. lu tax fàttaliku woo loolu. jàppante naa fii Mimi bi mu nekk premier ministre. mais jàppante nañ fi. Aliou Sall rakku président de la République bi mu amee problème bu wax naa sama xalaat Iba Faye magu Marème fay bi ngay wax mais wax na fii man ak moom mu jaar nii ma jaar ne donc man ce que tamit nit ki da koy nangul ni mel xëy na naqari naa dëkkal mais ku may àndal damay ànd ak yow ci dëgg ci président Macky Sall xam na ni que man ci dëgg laa ànd lii may wax nii waxuma ko pour sama njariñu bopp parce que man def naa sama tànneef nee naa bu bàyyee moom man jàpp naa ni damay bàyyi donc man xaaruma ci masam ba falu jox ma nit mënatumaa jox ci nguur lu ma amul lu dul man lu ma utali sama bopp nit fii nguur mënatu fee am ba président falu fi ba jox ma loo xam ni président Macky Sall joxuma ko ci cër ak ci daje ak